ñi nga xam ne yaskuruuna ñu ngay fàttaliku ànd ak tudd allah buur yàlla ci yaaman ci buñ taxawee di julli waxu uutal ak buñ toogee di jaamu yàlla te yàlla bi jullee ko moom ko uutal zikr moo ko moom ci toog bi sikkar moom moom ko uut boo demee ci charia sunna nag ci am gantal taxaw pour julli toog moom it wa uula wa ala junubihim ak ñi wéra di nag ba mënuñoo taxaw mënuñoo toog ñu tëdd waaye seen itte yëpp saa ni tuñu uuf ñu boole ceeb mel ni lay fàttu dem séeréer ak mbokk yaay déedéet wa ala junubihim lu leen teg loolu yëpp waaye tafakkaru na ñu ngay xalaat fii xalqi samaawaati wal ard bind gi yàlla bind asamaan ak suuf xool nañu asamaan bépp nekk waaxu ci suuf kenn mosul gis suuf asamaan amee fissure kenn mosul ko gis wala fu mu la ñëw mm. dañu asamaan bu ngay daanu étage yi mm. amoon suuf moom dégg nañu rek ñu leen waaye loolu ay secret la nit moo tax nit a dëkk suuf moo tax suuf di rëññee bàkkaar yi ñu fiy def moo tax asamaan bàkkaar amu fa ndax ñoo fa nekk dañoo sell ay malaayika rek dafa ne jinne yi yegguñu asamaan fa hmm. benn jinne yegguñu asamaan jinne yaa ngi fii bay na sama waat wala diggante asamaan ak suuf la ñëw malaaka yi rek a nekk asamaan asamaan amul mbindeef mbindeef ya fa nekk si néew yàlla leen fa avec ku mel ni yonent yi anbiyaaw yi yonent bi romboon ñuy gàddaay ba muy gàddaay ci juróom-ñaari asamaan yi yonent yi ñoom ñu nga fa ba tey waaye am na ñu leen di wéttali nag ku mel ni Cheikh Al Hadj Omar moom dëkku fa waaye fa lay dem guddi gu jot trois heures du matin fa la koy fekk ba cinq heures du matin mu ñëwaat ci suuf <laughs> moom sew kooku bokk ci moom Cheikh Al Hadj Omar Ah, bu defee tour du monde ba noppi da julli gee ca Inde hmm. bu jullee gee ba noppi asama hmm. hmm. pare ne cinq heures du matin mu jëpp lu waat moo tax nga déggoon ca waxam ne man awal al fuuti yi xaw ma mbedd di asamaan yeeg mbedd di suuf yi moo nii ndax dégg nga noonu moo ko waxal boppam de moom Cheikh Al Hadj Omar mu ne xaw ma mbedd di asamaan yi man awal al fuuti yi ak mbedd di suuf yi ban nii asamaan dafa am ay mbedd comme ni su bi Dakar amee ay mbedd avenue Blaise Diagne ak avenue Malick Sy avenue kii foofu boo demee dafa am angle Rasulullah angle Idrissa muy yónni Yàlla Idrissa avenue Isa ibn Maryam maa la ko wax avenue yónni avenue Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ni àjjana amee ay tur asamaan mbedd yi noonu la amee ay tur yàlla amul lu amul tur lépp am tur asal mbedd moo fi xam rek am na mbedd moom doon ci asama loo gis ci suuf rek ñu ngi ko rayee ci asama moo tax nga dégg sëriñ ci am ne ngeen ci yàlla rek sax yéen naa ko buusam ba tey ko ko téye ca kaw ca kaw mu ngi dox ay itteem bi moom la sëriñ Mariam waaw ñenn ca kaw ne wuñ ko pour yaa xam bi lekk maa fekk doomu daal de de de rek mission nekk. waaw waaye ban sax amul ba nekkule. mission la rek ba yàlla dekkalaat yàlla bindale ko def continue mission bi. waaw waaye nag bu taxawul du am mission bu taxawul moom fugg rek. waaw di fugg di nàkk rek. di wëlbati di fugg rek. maa la ko wax di wëlbati di fugg rek naan ko suuf mosal tuuti rek. inna kàlla si la si suuf kër yi. yaa doon tedd tedd ci àddina tey fii nii yëpp yoon. maanaam Alxuraan la yoon. zuxtu zuxtu mooy masal. li naka naka yow ak te yow nii. al aziz ñoo lañ doon wax ne yaa teg doon fële. jaadi al karim. ngay jaaga jaaga rek say garaam. te su ñu koy nàkk nag boole ko ñu wax ñu nag pour humilier ko. humiliation rek moo fa am ku texewul moom dañ lay humilier rek. dafa mel ni bu sax ma daal seen Cheikh ba léegi bu ñu waxtaanal ba mu ne waa Sambara ba xooloo ba rek doy na leen soxla wàcc ma yaa ngi may dëkkal yaa ngi fël sama bakkan bi sama ndox mi ne xoos na mu ne xooloo rek taxaasumu ahli naar alxuraan ba rek taxaasumu ahli naar waaw waa Sambara xooloo rek wàcc ma yaa ngi yegg sama biir bi ndax Sambara dafa xat waaw dañuy tàncaloo waaw dañuy tàncaloo. prison bi sax moo gën a neex kaso yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura yii yëpp ñu koy wax kon ñun ñëpp ñoo ànd rek góorgóorlu diine ji kenn moomu waaye xam nga kenn moomu waaw waaye dafa këroon na fi xalqi samaawaati wal ard fàtte wu ma rabbana maa xalaqta haadaa baatilan bu ñu xoolee asamaan bu xool suuf ak li ci yàlla def yëpp li yàlla dëgg dëgg nag lii neen taxut nga dindi ko maa xalaqta haadha baatilan subhaanaka tudd naa sa sellati yow rek a sell wala yow profité ko ci yaakaar ne ñu ngay baax yàlla وقنا عذاب النار يلا لن يوزنوا بالمسلمين ربنا يوم رب سجود إنك لك يوم من كيف كو خامل دوغ خلا دوغ ديف كو النار السفر فا ساسا فكو دوغ فم كو دوغ اخ زيتو gàcceloo ma ko Pape Pape Seye Diop gàcceloo ma ko waa te nag maa leen zaalimiina amul benn tooñkat bu mu ñeel nit ansaare bu koy dimbale ëllëg yow maa leen zaalimiina nit ansaare lu ci topp rabbana wa atina moo ci rabbana yow borom suñu waatina yàlla nga ñu may gu ànd ak jox ñu ko gis nga baat bu gaaw la waatina yàlla na nga ñu may ànd ak lan ñuy may nga jox ñu ko man li nga may ba bañ a pare bañ la ko jox maa la nga xam ne waatina digoon nga ñu ko ala rasulika ca sa yonent yi ne da ñu ko may ñu am ñoom. am ko waatina yaa ngi ko digoon maa waatina ala rasulika wala tuxdina bu ñu gàcceel yawmal qiyaamati bés pénc innaka naka yow innaka naka yow hmm. innaka li wér tey wér mooy lii wér tey wér mooy hmm. yow mii hmm. laa tuxlifu déew ngay wutee al miiaada sa dig loolu liggéey di ko def innaka laa tuxlifu al miiaad rabbana li ci doon واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا تجب اننا لك من جيد سيدا سمعنا ذكرين وينادي اجي وحده وينادي yunaadi ñu lay woote lil iman ni ñeel ku la gëm fàcce saa sa bañ ko déggee rek amee ñu gëm ni rabbana yow borom suñu faghfir dañu gëm te noppi faghfir yal na nga jéggal lanaa ñeel ñu du la wanaa suñuy bàkkaar yi wa kaffir yal na nga soppi sayyi'aatinaa suñu ñaawteef yi def ko yiw wa kaffir annaa sayyi'aatinaa sooy ko defal de ba noppi wa tawaffanaa suñuy dee yal na nga ñu rey maal abraar ñu ànd ak ñi al abraar cër la ci gaar ci ci awliyaa yi yeggul ci. yemul ci xut waaye ñi ñi ñi ñi gën a jege xut buy agraab yi ci lañ bokk wa tawaffana maa al-abrar rabbana lu ci daw wa tawaffana maa al-abrar ah rabbana kon dama juum fële rabbana wa atina maa wa'adtana ala rusulika yàlla yan na nga ñu jox jox bu ànd ak may wala may gu ànd ak jox ala rasulika maa waatana lan ñu digoon ala rasulika ci sa yonent yi ah maa waatana ala rasulika wala tuxdinaa bu ñu daal seen mukk yowmal xiyaamati bés pénc innaka naka yow li muy tëwër mooy laa tuxlifu doo wuyte al miaada ak dig sa dig loo diggee di ko def xam nga li doon may yaram dana am yàlla ne dégg naa li ngeen wax. waaye li ngeen wax yëpp indi naka man mii ngeen ko wax man yàlla indi naka man mii ngeen jël garab yooyu yëpp ràng ma ko te muy dëkk laa udiyu du ma sànq mukk amala jëf aamilin aji jëf ja min zakarin jógee jëf ja jógee ci góor aw unsa wala jigéen du ma sànq seen jëf kon mooy jëf lii ku ko teel a dégg nag jar na lii nga noppalu te ndaw uti jëf wax Sénégal nañ bàyyi wax wax rek wax rek fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin ñu sant yàlla bu baax ñun ñëpp nañ sant lii ñu nekk nekk luñ ci suñ bopp yàlla la sopp waaye yàlla yàggal si bopp yàlla day nekk ci rek ndax dund àddina bi mataaw la xayaati dunya qalil dund bu gàtt la tabarakallahu ahsanul xaaliqiin hmm? waaw incha allah xam nga tabarakallahu wala yëpp xam ngeen waaw wala yëpp xam ngeen ci la bokk ci ñi def ñi def nawet bi dafa am ñi def nawet di dem di ñëw am ñoo xam ne foofu rek lañ nekk di dox ay mission ñoo fa ne di dox ay mission nag Seydou Hadj Malick mi ñu soxna ci ñaan yi bokk ci. yónn nañu bokk ci. waaw kay ñooñu bokk ci ñooñu moom asamaan. allahu akbar daf leen nii. ñooñu moom asamaan ñooñu bokk ci rek dañuy joxe mission dañuy superviser dañuy superviser. meloon yu si rasulullah bokkuñ kenn du moom wax coow bari nag waaye yeneen bi kenn du moom wax naa leen ko fii bàmmeelam tey ñoo koy ziyaar ci benn tur mun a war fa tëdd ci bàmmeel ba sax suuf ñemewu ko laal suuf si day day tourné ko koo di rasulillah suuf jegewul ko wala mais suuf sa day baj baj yi day dundu shahada la ñuy dund waaye fi yonent bi dund moom. Hmm. kooku dund xëy na xëy na yow lay dund. <laughs> dundu shahada gi day day yàq ba leen di jeex. moo tax bu ñuy fekkee lépp yonent bi fi mu toog dafa jóg. wala ko lépp di fekk. Hmm. tax mu ne bay na bay na raw bii. Hmm. bay na minbari wa raw bii. raw datul minbari diggante fii ma taxaw di leen jiite allahu akbar asalaamaaleykum ak fii may tëdd ëllëg. Hmm. dër la ci dëri àjjana yi fii daagu yaa ngi daagu àjjana. ma ko ma maa yegg ci naa wala lu mu wax dëgg moom fa mu tëdd du fa jóg. te lépp fa la ko fekk. te lépp fa la ko fekk te lépp fa la koy fekk. moo tax nga gis ko wax ci. téere bi ba tey miimi ya hmm. altine bu jot euh, jëfi jaam yëpp dañ koy dajale fekk ko ci doom bi moom rasulullah yeew ne ko jaam yëpp lii leen jëf waaye sa xeet bi nag mooy ñi ci gëm ñi la ci sa xeet bi lii ak lii ak lii ak lii lañ def mu càmbar ko lu ca ñaawul mu jël ko teg ci tànku càmbuñam hmm. lu rafet mu ne yàlla fulal leen dossier yooyu malaka yi sax duñ moom ak yàlla rek te yàlla am na ci dossier yooyu malaka yi sax duñ ko gis moo tax nga dégg ni ñëw ma ni El Hadj Abdoul Aziz mu ne am na ñoo xam ne yàlla bëgg na leen benn vérifier seen dëkk mu ne buñ juumoon ba def juum te sax malaka yi duñ ko gis day fuloo ci ñoom waaw daal di ne yal nañu yàlla boole ci jàmm yooyu. yal nañu yàlla boole ci jàmm yooyu. yàlla lu ne am na ko. addina baa ngi nii rek. ku ànd ak président Macky Sall tey lu la nga xam. loolu laaj ñuy jox la. bu la nekkee ministre. boole la ci ministre yi. wala ministre conseil yi. ak fu muy jëmaat la yow. bu la tegee loxo yi lu muy def jiitu yow. nee na yàlla am na. Mm-hmm. yàlla am na ko ci Cheikh Al Hadj Omar minhum. Mm-hmm. Cheikh Al Hadj Malick minhum. Mm-hmm. Cheikh na Tidiane minhum. loolu la yàlla dogal. asxaabu tariqa yi yëpp. tariqa boo xam ne Cheikh na Tidiane yonent bee ko joxal ni ko asxaabu ka asxaabi. déedéet asxaabu ka asxaabi la. wax moom kaaf rek. musiba kon ku góorgóorlu waaye daf ko ne asxaabuka hmm. asxaabi wa talaamiizuka talaamiizi wa fuqaraauka fuqaraayi mu ne ko ñi ànd ak yow mooy ñi àndoon ak man miskin yi nekk ci sa biir ñooy miskin yi newoon ci sa biir loolu day gis. day gis nañ góorgóorlu waaye nañ góorgóorlu rek waxin la ñun ñëpp ñu ngi ci waaw nañ góorgóorlu lu ñu mën tariqa bi daal laazim wasif xadara juma ko leen ko foy fa la secret bi ne de. billahi wal kitaab bi fa la secret tariqa bi ne. yàcc yàcc yu bëri yi dara teewu juma leen ko. comme sax sa bàyyi xel nag mooy le le trente le trente la. incha mooy waxtaan bi ci Serigne si Serigne Mansour waaw man Serigne Babacar ak sama laaj mooy waxtaan bi ci Serigne Mansour Omar mu desee tuuti nga di ko jàllale comme ni nga daan def beneen bi ci des nag moo di euh, su jàllee nag ñu continuer suñ solo dund woon bu taftal ci yi ma waxtaan noonu lu ma ci jaaral ndax gis naa ne reprendre ko mooy yàlla jëmoon suuram ah. alaaj Mansour waaw. alaaj Habib ah. Seydi El Hadji Malick yooyu du ma ci delluwaat lu ma ci waxtaanoo nag du ma ci delluwaat ndax mu ngi reprendre yëpp nga dugal ko. ñu ñu continuer. noonu la moo ëpp tam ndax wax waxaat na rek la ma ci doon wax wax naa ko. léegi ñu daal ñu wax ko ndax defoon naa ko yàgg na 2011 la woon. 2011 la woon Walfadjri ñoo ko jël si woon ci ndigalu Saz Malick Fall. Malick Fall ak ak Oustaz Assane Diouf tabarakallah mu ngi ci gis naa waxoon ne wër ko maa ngi koy seetaan noonu lu ko def noonu la tabarakallah euh, bi ci des mooy ñun am nañ kilifa yu mat kilifa mooy ni alxaaji si bi daan wax am nañ kilifa yu mat kilifa waaw euh, ku mel ni Cheikh Alxaaji Omar kooku moom ayatun min ayatillah waaw maam Abdoulaye Niass rek ko xam moom mu ne mooy Cheikh Tidiane nit ñu ñuul ñi baat bu rëy la maam Abdoulaye Niass daf ko wax muy baat bu gàtt waaye baat bu rëy mu ne maam mu ne Cheikh Al Hadj mooy Cheikh Tidiane nit ñu ñuul ñi. na ngeen def très attention te bañ ko ñàkkee teggi soo xamee si ne la moom boobu yëpp nag man amatuma jàpp mu ne bon bi saa yu may génn dama naan ko ku fi ñëw koo ko ñëw foo lu la nee na dama koy naaba naa comme kuy yëpp siin nee na fàtte woon ko sax ndax ëpp weer mu ne ma jékki-jékki am ku sonné mu ne keroog nag na ma fa fekk fa sama borom kër ñu ne borom kër ma ngi ci balcon bi yër gis muy ubboo jànq bi ñëw di ubbi gisul kenn ñu ne mu toogaat cinq minutes sonné waat mi yi sëpp gis muy ubboo jànq bi di ñëw di ubbi gisul kenn ñu ne mu toogaat cinq minutes ñëw sonné mu ne bii yoon nag jànq bi du ubbi man maay dem ubbi sama bopp borom kër gi. bu sëkk bi gis ko wàcc ubbi. mu ne ko jànq bi laa doon bañ mu ubbi ma. seetal la fii ci yëngu de mu ne ko bismillah. nee na mu recevoir ko ci salle bi ñu toog moom ak soxna si. borom kër nee na mu ne ko soxna si yow toogee ñu ne nee na ma toog ñu ne mu ne maa ngi sens de. xam ngeen ñu ne ko déedéet mooy man la Cheikh Omar Fouti am ngeen sens de maa ngi jullee léegi fajar Màkka ma ñëw seen kër billahi wal kitaab soxna saa ngi fii ci yëngu de mu ne ko sa jëkkër kii sa jëkkër bii jamono yëpp liggéeyul mu ne ko waaw ah, mu ne ko Nations Unies dinañ ko jël balaa yàgg di diggante bi mosul xam luy Nations Unies ci kaw suuf nee na ba ba mu yàgg mu ko demal nga may ma mbàjj bi ci biir néeg bi li ma ne ko mbàjj moom amul moom li ma ne amul ko mbàjj muy soxna si moom ay nettali ma ne may xalaat di xalaat ba mu yàgg ma ne ah am na mbàjj bu bees bu ma jëndaloon xale yi bi ma demee Chine nee na mu dem jël bàjj ba jox ko nee mu ne ko waaw kañ bàjj bi laa doon wax mu ne mu jël bàjj bi uuf ko di waxtaan ak ñoom da ko yéene man maa bu kër gi du tey laa fi ñëw de yàgg naa fi ñëw gis leen ma fanaan naa fi ay guddi te xamu leen ni fanaan naa ci kër seen boobu wax leen dinaa fi na dëgg man maa ko wax ne dinaa fi ñëw ndax dama leen xaw ma ñooñu luy defal yàlla nag xaw ma loolu rek a jaral luy defal yàlla soxna si nee na man may nekk diggante asamaan ak suuf xaw ma ci lu ma ne maa ngi naan yàlla moo fi wax lu ma yàqalee rek mu ne ba mu yàgg mu xool ma ne ma doo yàqalee rek nitu àjjana nga nit day wane man ko soxna si yow du la neex defal nee <laughs> na fi mu koy xalaatee ci xolam mu ne ko yow doo yàqule yow nitu àjjana nga ñu ne ma ne ko alhamdulilah rabbil alamin mu ne waaw kon ñu ñaan maa ngi dem nee na ñu ñaan mooy góor gi gunge ko ba ci bunt bi taxaw tëj bunt bi mu ne fekk ne moom soxna si day complot mu ne soxna si da ngay yéeg ci kaw fi ma taxawoon nga sëpp xool ko mën na gunge mu góor gi gunge ko soxna si yéeg ci kaw sëpp nee na maa ngi koy mu gunge ko ba ci bunt bi. mu taxaw moom ne ko jërëjëf jërëjëf ñetti yoon. borom kër dugg ci biir kër gi tëj. soxna si maa ngi sëpp di waxoon. nee na nii la def ñetti yoon nii mu ne nii daal la def loxo bi ñetti yoon. mais merci gisatoo. si ne ma kenn nettali ko maa ci teg sama bët mu ne nii la def loxo yi ñetti yoon. def fef. dem xam mu ne ma gis xamu nu ma la wax ba mu jaar. loolu kay xanaa ngeen di gis bokk ci. encore une fois waxuma ne dee dafa bakkaare. waxuma ne dee gàcce la. yonent bi daf na te moo gën Cheikh Oumar. waaye am nañu yàlla bi bi du dee. loolu am. loolu yàlla dafa ñëw mooy foog a وسع ما في الارض ومن في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله beneen bi mu ne illa man shaa allah maa bi am na lu muy dox man bi am na lu muy dox ismu mawsul la li aaqili ismu mawsul la li aaqili di ñaan xel la di jamaadaat yi la jamaadaat yi am na yu fi dundee am na ñu ciy dutee mais dee du gàcce dee honneur la ci la la yàlla di réglé fay la loolu honneur la moo liggéey bi weer dee war nañ laa fay buñ la fay xam ne laa liggéey wala déet te sow amul ah yow mi boo liggéey bi weer dee duñ la fay léegi di dégg ñaata moo balansal wu ngeen gis ci bett bi parce que fay yi ñu def mais ku nekk baat la ci la la yàlla di fay dugg baat la yàlla fay la image ak yan au image ak mais ñu fay la lu baax wala ñu fay la sabaat من من عمل من عمل سبعا فلنفسه وما فعليها وما ربك بظلام للعبيد إن سعيكم لشتى ولم يجد yàlla ne li nga liggéey laa lay laa lay fay. wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayr tajiduhu inda llaahi huwa xayran wa a'zamu ajran. ah lii rek la. waaye nag dañ dañ def itte. ah Cheikh Al Hadj Omar mu ngi fii ci àddina bii ak ñun ñii di dem guddi bëccëg suba bopp wilaaya nag mooy yiw yi mën naa sax ne wilaaya c'est unique unique boobu moom rek a ko ñaar la yàlla may loolu ci àddina ñaar rek la ko yàlla dem ñett ki leen waroon na ñetteel moom dundam yegg si wut fii mooy yonent Yàlla Isa xayyun waaye fi sabri wala yu xadir charuma ñoom dong la ko yàlla si marka boobu ñoom dong la ko yàlla si wala yu xadir ak charuma di def tur bi moom ñoom ñaar ko am di siège ci xadara ba ilaa yow bi waasu ñoom ñaar ko am yooyu dinañ ci dinañ ci wax beneen yoon ndax nit ñi dañ xamul yooyu dañ foog ne yooyu miracle la miracle dañ tax nit ki gën a góorgóorlu soxna si xaw ma lu defal yàlla rek waaye am na lu defal yàlla xaw ma nag lu boo borom kër soxna si tegal ma ci ma ay dara xam nga lu gën a yéeg. Hmm. ma ne ko de ma weer nañ ci teg nationalisé bi jël sama borom kër fa lay liggéey ba fi may wax weer lañ mu posté rek nationalisé bi jël ko fa lay liggéey ba tey te fii ma toog loo xam yow. ñu hmm. ne weer net lañ nit ki la am képp hmm. mu posté rek nationalisé bi jël ko fa lay liggéey te te Cheikh Al Hadj Omar mooy ñëw ne ko fan yii balaa yàgg di nga liggéey na si. waaw départ na xam nga départ na allahumma ñetti liir la. la ilaha illallah. tur yàlla yëpp a ngi dajee ci allahumma. Hmm. Hmm. ñoo tax qul illahumma malikal mulk hmm? allahumma rabbana anzilna anzil alayna maa'idatan min as-sama waaw ah? allahumma rabbana anzil alayna mooy yi njëkk avion xam nga hélicoptère day def bëri avion mooy daw avion balaa jël am départ day daw vitesse trois cent kilomètres par heure. bu trois minutes wala euh, vingt cinq secondes. Mm. ci lay door a am mm. loolu magnétisme bi nekk ci suuf di attiré di téye di téye acier. Mm. vitesse boobu bu ko avion defee bu defee trois cent kilomètres heure. daw ko ci piste bi. magnétisme bi ci suuf dootu ko mën a résister ko mën a téye daf koy bàyyi. bu ne bën bët rek magnétisme bi ci kaw moo koy tàq yëkkati tubaab defu ñi daal lépp alal la yàlla fàttali ngi rek la ci def jàmbaar la nag ndax lu ci nekk daf ko calculé boo duggee boo gisee avion boo ci duggee ay yëpp ay ay bind la ay chiffre ay 2 3 4 S yooyu ngay gis yëpp mathématique la xam nga fu ñu ko jëlee mm. tubaab yi duñ jaaxal bokkul bu si عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال لا إله إلا الله فوف lañ ko jëlee ci alquran وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعال fils yi di dem yëpp fa lañ koy fa lañ ko récupéré ba pare nag yàlla jox leen inspiration inspiration bi mooy wala wax la boobu tey loo gis ci oto mu ngi ci nit loo gis ci oto rek mu ngi ci butit yi tànk yi nopp yi bakket bi gis nga ba ci kawar yi ci biir bakkat am na ci oto mooy filtre à air filtre à air boobu mooy ba mooy kawar yi ci biir bakkat mooy tax oto bi poussière yi kooku la ñuy wax filtre dentaire yore gis na euh, kii kaw li ñuy xet ci sa bakkan bi moo tere dajee poussière bi ni muy baree ñu ngi koy xeeb moo koy capté di ko waddal di ko capté di ko waddal boo ko waree noyyi mu capté ko waddal ko lànkate doo ko yëg moo tax góor bu baax bi liw ma nii rajo bi جند من جنود الله يسلطه الله على الجسد ليخرج منه سائر ما لم يكن منه. الله أكبر. لا يكن لبيت. من الزكاة مصيب. الزكاة مصيب. الزكاة مصيب. يبقى من جند صلى min junuudillaahi jógee ko ci soldaaru yàlla yi. mooy yi yéen soldaar la dañu day gàllankoor fóole ñu taxaw di ko gàllankoor. ni xef di gàllee lu war a dugg si bët gis nga ni ngay ni xef balaa ngaa xef xanaa xamoon ne yow léegi koy njëkk a àndal sa sën boobu moo koy téléphoné ko weñ maa ngi ñëw rek wax ñëw. yow di kooku nag weñ a ngi ñëw rek moo xef noonu xef di protéger bët noonu la. kawar yooyu di protéger bakkan parce que ñetti bay mooy filtre yu moom la mooy wax ak yu cerveau bi correspondre bi mooy wàccee tuflit yi boole koog ñeenti xeet yi muy filtre air bi ngay noyyi su ko defee bu ko amuloon rek booy noyyi dara génn li ngay noyyi poussière yeeg yooyu yëpp nag. moo koy capté lii muy sànni lii muy retenir lii muy sànni lii muy bu baree ba baree nag. moo tax sëñ Abdou ne jun ñun ñun junu lii laay. soldat la taxaw fa di garde ci soldat bu yàlla yi ndax yàlla ko posé. yu sànni ko wut baax wala ñu jësat yi su demee ba pare nag dama la dugg contrôlé mu bàyyi ko ci biir yaram bi. li ñu xool itam ngir na dajale déchets yi newoon ci biir yaram bi. saa yaram mboolem yi nga xam ne moom ci yaram bi saa yaram bii moom. lépp lu nekkoon ci bi te warul jaar ne war a nekk maa lam yakun nii bu ko defee na nga commencé nag dama soj xaax tëf ñaxu fii xaax tëf fii une semaine mu mooy xam nga mooy lan ci or finance bi jeex na date bi expiré na dama lii la ñu ko ñun ndax it yi mooy mi Mmh. xam nga essence bi ci waxtaan ci nit mooy fan. tuufli mmh. bi boo ma tuufli njëngale. boo ma carburant bu ndaw. ay dara mun naa ko toppal nii ba ordinaire ko day yëpp jeex. wallaahi xam nga ay dara. tuufli mooy carburant. Mmh. boo amul tuufli njëngale. boo amul tuufli doole. ak boo amul tuufli doole. mooy yàq seen ñam bi. ñu jàllale ko ci biir ci oli bi mu jàll ci bi bi door a jël nag di wàll graisse graisse yeeg deret yeeg yëpp moo koy filtré essence bi bu duggee ci biir boo solee carburant ba noppi moteur bi di roulé yi war a dem ci kii yëpp mu ko mu di injecteur yi di ko sànni muy dem moo tax oto bi ne organe parce que ci nit lañ ko copié. am réew ñu ne picc. te loolu yëpp yàlla maa sàmbale na ko ci benn aaya yi di ko wax ba guddeeg bëccëg. wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'an wa jaala lakum as-sam'a wal absaara wal af'idata la'allakum tashkurun moom aaya bu otoolu huwa alladi yusawwirukum fil barri wal bahri يعلم هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع mooy rajo bi muy liggéey ñi nga dégg boo kon kaal bi. noonu mbay. ak ay sama. wala ko saara. lu tax mu teg ci bët. boo bu tàkkee ba noppi foog nga xam fi ngay jaar. ah. bu tàkkee ba noppi lu ci des direction fi ngay jaar wala di jaala lakum axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuna shay'an mooy chauffeur bi dawal xamutoon dara bam jàngul conduire mënul conduire béy mënul fóon yàlla ne maa la jàngal conduire ci naan wa jaala lakum samaa wala absaara wala afidata xam nga mooy la permis hmm. dawal sans permis de contraire rek mooy mën ngaa tawas te yaa contrôlé oto bi xol bi moo contrôlé jëmm ji te moom ngay gëmee yàlla per bi boobu jënd sa tur di nekk ñu ne bay misaal la moom oto bi ah ñu ne lu tax mu ne la'allakum tashkurun koo lawee ba gaa rek man maa sant <laughs> waaw oto sant koo lawee ba gaa rek man maa sant man maa waaw bu ko defee ngay gaaree ne ah alhamdulilah rabbil alamin dem yegg si naa laallakum tashkurun mu tegal la ca nag ne yow buy bëgg a tukki dem France alam yaraw xanaa gisuloo ila tayri avion bii naaw alam yaraw ila tayri musaxaraatin fi jawi samaa maa yumsikuhunna illa Allah innahu bi kulli shay'in moo tax avion ñu ko tuddee voilà que des pareils picc. avion ci picc dañ ko copier. mooy dibaatu avion appareil volant oiseau naturel mooy avion. A bi mooy appareil. volant mooy ween. I bi mooy imité. O bi mooy oiseau. N bi mooy naturel. waaw ah, xabaare goro waaye nag imité ak ah, oiseau naturel mu ne picc muy naaw la rek waaye ñu ngi ko copier nag ci picc yi amul benn différence ak picc da gis na laaj amul benn laaj ci avion bu def nii nii la picc buy naaw bu deful nii du def boo gisee mu def nii daal euh, euh, laafee rek picc xamal ne taxaw na lu gis muy def nii am na lu gis bëgg a wàcc mm-hmm. lu fort ñun rek la yàlla bëgg ndax ñii yëpp teraanga nit la nit rek la yàlla bëgg te yëpp pour ñun la ah lii yëpp pour ñun la mm-hmm. yàlla ñu yàlla defal su wallaahi wa salaam alquran maa faratnaa fil kitaabi min shay yàlla ne téere bii bàyyiwuma dara lu ngeen soxlaa dina laa xeram ci biir kii fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin ngeen baal ma